Omar Anne teg euh, teggi ma teew ñaan teg fi Cheikh Omar Anne. oui hein Cheikh Omar Anne ah, lañu lañu tek ci euh, bop l'enseignement supérieur teggi ñaan en tant que euh, représentant des des des des étudiants du Sénégal en tant qu'entrepreneur, entrepreneur hein, ah. Mm. étudiant professionnel naka nga gisee mbir moomu. bon mbir boobu D'abord, d'abord, à ma qualité d'interprétation, interprétation damay wax ma d'abord.

xulu xaq wala kan mu ran waxal dëgg donte dañ lay rey awma lu may ne parce que Cheikh an momu moomuñu moomu ma yi moomuñu ma et je parle sous le contrôle de suñu borom yonent bi yëpp parce que moom moo nekk sama xel moo nekk sama xol. xam nga mais li may wax ci loolu rek bu gàtt maa ngi jégalu mooy que ne il faut il faut d' abord cerner le caractère de la nomination caractère de la nomination mooy elle est la nomination est d' ordre subjectif. Et euh, le fait d'être élu est d'autres objectifs, si je peux me permettre de le dire. Donc, euh, Sherma Anne, ex-directeur du CUD, gère plus de 80 et quelques mille étudiants, TLN, de gérer centre des œuvres universitaires de Dakar, kooku vous bu que monde français le monde français problème le quoi pour moi c'est son problème. non mais non mais dafa mel da ngay taw dafa mel da ngay taw dafa mel da ngay taw waxal wax ci parce que dégg naa say morom. bi ma mhm. ñëwee ci le côtoyé pour amal yow interview bi. Mhm. dégg naa say morom yi taxaw engagé ne. et eh, daal Cheikh Omar Anne mënu sax làkk tubaab bu jub ni ñu mën saw ñaan dégg nga loolu. donc bu ñu ñëw ci caméra bi rek yow tamit nga bëgg a daw waxal li nga xam ne. non du question du question daw mais xam nga question lan la. question de ku nekk rek da ngay wax li nga xam ne nekk si yow parce que moi je pense que le président de la république moom moo conscient moo ñu conscient ci euh, ci le fait que mu war a nommer qui, war a il connaît bien il connaît très bien Mary Teuw Niane xam c'était un professeur xam ne ne a une expérience dans l'éducation donc beaucoup de gens jëlee tey indi Cheikh Omar Anne Tekofi, ko fi Cheikh Omar Anne n'est tamit une personne boo il est crédible il est il est responsable si vous faites que la France, ou français wala pas je pense que c'est du du c'est quoi le débat mon cher Omar Anne il lay conduire politique université il va faire mieux que Mary ou bien il fera moindre que Mary je pense que le débat se pose là. parce que bu que déggul même vous faites que déggul français te mën na def politique boo xam ne nii. daw nga question bi daw nga question bi mais garaawul daw nga question mais garaawul. ok comme tu veux parce yéen moom fi mu toll nii. comme tu veux seen wax yëpp lakk kaar la petit petit mais. mais mais bu fekkee ne dañ taxaw di wax am na étudiants yoo xam ne maa ngi jégalu ci loolu parce que man loolu des fois daf may metti mm. que étudiants yi des fois ils n'ont même pas l'art de parler le français. des fois des fois on le dit yéen ñi média yéen ngi si média yi dañu koy wax à chaque fois donc bu ñu critiquer à la personne de Charmant Oumar ci loolu man je pense que débat bi du foofu nañ xool nañ nañ nañu may chance

un coup de pouce là Yalla y a ko dimbali ba lepp lu mu yéene mu am. Ibrahima Dramé mot de la fin. Euh, mot de la fin je euh, damay remercier d'abord Alors Allo Dakar TV franchement remercier Dal Dakarou parce que man Dal man bon man des fois ñi ñu sax dañuy wax né comédien nga waron doon tu as raté ta vocation. <laughs> non man. Ah, mais euh, yow y a may daaneel. waaw ak ce ce ce caméraman femme, Masha'Allah, demain dama leen di ñaanal yàlla def euh, radio, bi yàlla def ko télé site bi. la revue de presse hein? de presse, ngi koy xool chaque jour. da ngeen def bon c'est nice. c'est nice parce que de manière, c'est c'est trop trop trop trop professionnel mais comme que y a ngi tep tep, bu nek mo gën yuret y a ngi dem di ñew man je pense que ça va venir té man chaque jour bama xé xëyee damay xol revue de presse allo Dakar TV ci chaîne YouTube ne serait-ce que pour faire un coup de pouce def sama mention j'aime et aussi abonner di nuyu sama xarit yi sama ñi Alfred Sidibé di nuyu Abdel ñoo bokk fii Nord bon di wa ñaanal ñëpp di nuyu sama madame sama madame madame madame Anne wala madame Dramé su ma D'accord. mais machallah, il y a yàlla def qui ci radio, bi def fi barke te lépp lu ngeen fi séntu suñu borom ci kattanam mën na yalla defal len émission suñu Dakar TV euh, invité étudiant bi politicien bi dawal katu bi euh, kat bi ah, ak nous ñun euh, Allo Dakar na Dalu Dakar la fekk ci la fi nga nek mba indi la biir kërëm ngeen tok ngeen waxtaan té na ñu ngi dalalon Ibrahima ko limu wax ah, yi ah, nañu nañu nañu nañu président nañ ne chance mais mérité moom Cheikh Omar Anne ma ñew ci li nga xamanteni moy euh, samay partenaire jili Création di tailleur qualifié en hein, produit simple nek fait ce sikap de euh, de prestation familiale euh, mën naa ci numéro bi ma def 78 179 07 82 78 179 07 82 kooku moy jili Création ah mooy je yu rafet yi xamna aljuma dina ma yaq mbokk ma jox len dig dajé